li lay ànd ak coronavirus kooram ndox mooy deuxième wala buum yi kenn daal bi ñuy sol kooram la tudd dama ne ko buum ba Angleterre la reine Elisabeth li muy sol kooram la tudd corona moom mala boobu moom mu sol dafa mel ni comme ay suñel comme ay kooram la ñu dee ko corona waaye jëfu nit la ñu ko defal beneen dégg si coono ci ginnaaw bu ma bu ma tegu ñu am ay problème waaw. mais da ko defal. virus boobu nag bu bon bi moo rëcc ci ginnaaw ba te teel koy delloo ko yombul nit kay day dem ba ñu amoon ko vaccin wala yaram bi de ba ñu ko dépp bu ko daal di ko gën a. bu njëkk nas dafa remonter bu nekk Ticmbay Kër sama remonter remonter dem nañ ba léegi Sida leerlu amoon nañ ko ay vaccin waa ji day ko non mën naa ne ñu waa ci naat moom moo rek mu ne gën a wax ñu waa ñu waa mën naa ñu waa fi si bu moo gën a wax ñu waa fi waaw ñu ne ko lu tax nga naan lu weex li mu ne ñu ko gën a wax moo xam mën kon lii boobu bu dee day gaañ dafa amagul lu lu ko sonal bu amee lu ko sonal dugg beeg yaram dafay daw génn li fi nekk nag yàgg yàgg daan Ne coloniser yàgg yàgg daan ko xeexante réewu Chine dafa dem ba ma marché mondial yëpp mu dee loo am ci àddina bi da nga am rajo loo am da nga am kële loo am léegi nag kenn dootul si ay milliards ay millions yu ñu ne continué ñoo war a génn jëndaat ñu marchandise kenn bëggul ñoom fu ñu def benn chinois yi daal di fukk daal di ñuy faral lii am ñooy lekk léegi ci populaire boo paree ñu def la di vingt la kon li nekk ci biir. ñu ne naa def seen xel tiitaane fa muy tiit mais yàlla moo ko wane boppam ak la kenn rek la moo ko boppam subhanahu wa taala